Bonjour Madame le ministre. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Et nous, sommes le stand en fait, qui va traiter sur l'éducation et la formation de l'employabilité des jeunes. Donc, d'ores déjà, nous vous disons que la CICAF 21, nous sommes une jeunesse très instruite. Peut-être ce qui nous manquait, c'est euh, des clubs d'orientation. Et je vois que vous, avez pallié à ça avec euh, la mise en place d'un I, cest à d'innovation CICAP, incubateur pour euh, informer et orienter les jeunes. Mm. Aussi euh, la promotion de la culture et de la pratique de l'entrepreneuriat, qui est un, un, qui est un de un, un, un phare sur euh, l'employabilité de la jeunesse. Parce que fait, nous les avons une idée en que déjà s'asseoir sur les bureaux, il a que vous, vous à ça, avec la promotion et la culture, la pratique de l'entrepreneuriat. Donc, euh, la mise en place d'un cadre de travail avec des outils et d'expertise appropriés, c'est-à-dire pousser les jeunes, les faire comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement s'asseoir sur les bureaux, les faire comprendre que euh, on peut nous-mêmes nous, auto-employer. Et vous, vous êtes vous palliez à ça avec déjà le rôle comme ministre de microfinance, les financements que vous avez faits, nous sommes au courant. aussi euh, que d'élargir un peu et voir toutes les couches, les faire comprendre qu'il n'y a pas que les bureaux. Donc aussi euh, le soutien à les établissements scolaires. Nous voyons que les franco-arabes, les pousser vers l'avant, les établissements. Nous voyons aussi que vous avez mis en place des, des bourses sociales, en fait, parce que tous les enfants ne sont pas, euh, les parents, en fait, ne sont pas bien habilités à soutenir les enfants jusqu'à surtout l'école, l'étude supérieure. Donc les bourses sociales, et là, ça, pourront aider, ça pourra aider les gens. L'accompagnement et l'éducation à la formation à travers des bourses. Donc, à soir, le forum des associations. Comme tous les quartiers, nous avons des associations ici. Peut-être, ils ne sont pas connus. Mais vous, avec le forum, peut-être déjà, je peux euh, engendrer toutes les associations, les mettre dans un même club. Et que chacun sache ce que fait l'autre pour que si l'un a besoin de l'autre, qu'on aille dans le même sens et sur la même longueur d'onde. Nous avons aussi, vous avez créé un foyer des jeunes. Et aussi, c'est ce qui nous manque parce que la jeunesse, il faut, comme on dit en Wolof, donc quand, quand, quand vous occupez pas les jeunes, ils seront occupés à faire autre chose. Et c'est pourquoi aussi nous voyons aussi des jeunes qui, les délinquants, des jeunes qui vont dans d'autres sens, c'est parce qu'ils ne sont pas préparés. Nous voyons aussi que vous avez créé une radio communautaire. Là, ça pourra servir parce qu'il faut savoir là où taper. Parce que la jeunesse, on sait que bon, on est plus attaché à, à, à, à l'audio, au visuel. Donc, avec la création de la radio, je crois que vous avez une cible bien déterminée et vous allez vers cette cible. Il y a aussi la mise en place d'un programme dédié à la coopération décentralisée. Je crois que tout a dit. Là, donc, nous vous souhaitons la bienvenue et nous disons que nous sommes tous derrière vous. Toute la CICAV derrière vous jusqu'à les de ministre, c'est plaisir que nous vous accueillons ici dans notre stand à ce point. La création et la la création et le développement des espaces et jardins communautaires, la promotion, et le modèle, euh, la promotion du modèle entrepreneurial de l'économie sociale et solidaire locale par la mise en place euh, de coopératives sectorielles, à savoir euh, des coopératives agricoles euh, par la vente de céréales, de céréales locales. Parce qu'ici, on constate un manque de moulins et consorts. La organisation des réunions d'échange publique au niveau des quartiers autour du sujet de pré préoccupation de la population. Parce que nous constatons que les maires ne s'occupent pas des ressentis des populations. On vous nomme en tant que maire, après c'est fini. On, on, constate que à chaque fois, euh, après les élections, vous ne vous préoccupez plus de la population. C'est pourquoi nous sommes très, nous sommes très enchantés euh, de ces différents points. la gestion du de vie, c'est aussi bien la gestion de l'environnement, comme vous l'avez dit, mais il y a la sécurité, l'aménagement, l'assainissement et la gestion des lieux de culte également. Ouais. Bonjour à tous, je me présente Abibatou Sissé et c'est un plaisir de partager avec vous ce thème qui porte sur la santé et la prise en charge des personnes âgées et vulnérables. Alors il faudrait d'abord savoir que la santé, c'est un indispensable. et qu'il faudrait déjà donc s'assurer de la santé de sa population pour pouvoir aspirer à un développement. D'abord par la mise en place de DEFAR, qui sera un centre euh, de désintoxication pour nos frères sicapois, qui euh, de plus en plus donc euh, s'adonne à la consommation d'alcool et de drogue. Donc DEFAR sera un centre de formation et d'aide à la réinsertion sociale. Il y a aussi la mise en place de l'assistance sociale ainsi que euh, donc les aides volontaires donc, euh, qui permettront la prise en charge des personnes âgées dans les maisons, des personnes euh, souffrant d'un handicap et des femmes enceintes. Alors déjà, euh, cette, ce volontarisme-là permettra à nos frères de se former d'abord donc au niveau euh, des métiers de la santé. Ils vont leur permettre, ça va aussi donc de pouvoir intégrer les postes donc euh, par après la réhabilitation et la redynamisation des, des plateaux sanitaires. Alors déjà, donc naturellement, qui est un point très significatif de votre euh, programme, n'est-ce pas Alors je vous souhaite une bonne continuation et une réussite totale. Et bienvenue chez vous. vous allez me permettre de m'exprimer en wolof. Voilà, ñun ñoo yore lépp loo xamante ni dafa dem ci culture sport ak loisir et yaakaar naa volet boobu noonu bon bu ñu koy wax tàmbali nga ko ba pare. Euh, par rapport ak éclairage yu terrain beeg dajaloo bi nga xamante ni ñi dajale nga ko ci njabootu sport ak euh, culture bi euh, voilà programme bi mu ngi nii ñëpp xam nañ ni stade Demba Diop depuis bi mu tëjee yàgg na te stade Demba Diop bokkoon na ci loo xamante ni buñ ko tuddee rek xel yëpp dinañ dem ci commune Sicap Liberté te bi mu tëjee ak léegi yàgg na ñu gis ne ci sa programme yaa ngi féddali sa kóllëre ak population Sicap Liberté yi pour li nga xamante ne ni lu koy mettre en place la kooku yaakaar naa ne ñëpp dinañ ci euh, kontaan. beneen bi mooy aménagement wu terrain yi ak euh, fi nga xamante ne nii ñëpp dañ fay dajaloo pour tàggat yaram wala pour loo xamante ne nii luy jëm ci volet culture la lu ñuy lu ñuy wax. yaakaar naa loolu lu am solo la parce que comme li ñuy wax un esprit sain dans un dans un corps sain loolu nag mënoo ko am te environnement bi vraiment. adapté wul par rapport ak loolu donc mi ngi nii euh, promouvoir tamit li nga xamante ne ni mooy talent yi nga xamante ni dañ fi nekk ci côté culture comme mu nekk ci côté sport euh, booy set côté sport surtout Sicap Liberté yi bëri na ay talent bëri na ay talent trop que ça soit ci football bi wala ci arts martiaux yi euh, man miy wax mën naa ko seede parce que je suis pratiquant de de de taekwondo gis naa alu tamit moom it mi ngi ci mais soutien bi nga xamante ni dañ ko war a am carrément boobaak léegi amuñu ko mais bi ñu gisee tamit ni nga xamante ni duggalante nga ko ak euh, jeunesse bi sa présence ak lépp xam nañ ne ah li ñu promettre boobaak léegi ñi ngi yaa ngi ci et nous espérons aussi que te lu ñu gëm la ginnaaw bi ñu la réitéré sunu sunu sunu sunu soutien ak sunu confiance que ne loolu noonu vraiment bu yàlla defee ndam am incha allah lépp tegu sa loxo tamit loolu soutien boobu noonu nga xam ne soxla woon nañ ko di ñu ko apporter kon ñu ngi lay euh, souhaiter di souhaiter ñëpp di souhaiter sama bopp tamit une bonne continuation parce que on est une équipe qui gagne bon marchons ensemble rek incha allah yàlla baax na. di nuyu madame la ministre Zahra Iyane Thiam candidate à la mairie de la commune commune Sicap Liberté man nag man maay je m'appelle Abdou Moutalib Diop. maay entraîneur ASC Mbolo ba pare El Hadj si tournoi wu première édition Zara Yantam bi man la ko joxoon man maa ko nekk di piloté nii ba tey la final boo waree opposé wu café gi mooy si vieux fële ak waa na mooy koñu Ndiogu Guèye man nag comme li ma waxoon la fois passé rek si gars ba ñuy def réunion comité directeur propagande bi ak campagne bi dama ne leen Zara du novice ba pare candidature am dafa légitime ndax je pense bien que 2014 peut-être notoriété bi amoo ko woon te bëggoon nga nekk maire Sicap kon ça veut soo ko bëggaatee nekkaat loolu lu légitime la te bëgg nga kon defal waa Sicap ndax su nekkoon non da nga ñëw rek benn bokk yaakaar nga nekk ministre nga xam ne léegi peut-être tu dégages des moyens nga ne da ngay nekk kii euh, candidat loolu day am andi chouroche quoi peut-être ay moyens ngay demee mais comme c'est la deuxième fois def naa yow rek yow yaay yow yaay kii ancien yi si ak Mimi ak Tamsir si j'en pense bi mooy loolu day gën a légitimer sa candidature rek ba pare tamit bay nekk si préparation finale ASC bi malheureusement finale bi dañ ko aj bañ demee feenee xam nga nee xooloon nga koñ bi quoi jàppale nga ñu yàgg sa say coronateur xaalis boo xam ne amaana kenn mësuñu ko jox loolu nag ñu ngi la siy gërëm di sant jour boobu tamit dañoo dañ la waxoon dal la dañ la kii woon dal la daagaanoon ay kii maanaam ay dàll pour jeunesse liberté gis nga booy nii nii yëpp presque football nañuy def ak histoire ak étude te ñoom seen outil de travail si wàllu football dàll la gars yi ñëwuñu fi pour ñaan 5000 wala 10 000 non non nit soo koy accompagner say outil de travail am nga koy jàppale moo tax ñoom instant yi lu ñu bëgg mooy dàll kese yoo xam ne pour ñuy mun di gën a def seen li ñuy liggéey quoi. waaw beneen beneen aspect bi tamit mooy si wàllu kii yi nañu wax maanaam sa programme ndax man dama gis comme sànq dama lire sa programme dama gis si point loisir yi ak culture ak sport bi nga boole si say prérogative affaire stade Demba Diop ma doon laaj ndax stade Demba Diop si zone de compétence u commune Sicap Liberté la bokk beneen bi tamit culture culture ak sport yi gisuma ñu mentionné si ASC yi ak école de foot yi je pas. di rafetlu aussi ni ngeen ma mayee opportunité ma ñëw toog waxtaan ak yéen euh, comme ni nga ko waxee ay partenaires lañ parce que yàgg na ñu ànd jëflante euh, association bi aussi yàgg ngeen euh, yëngatu di ñu solliciter ñu leen di jàppale maintenant dans le cadre global laay jël li nga wax. parce que li ma ci jàpp mooy li leen yitteel du luñ leen jox mais loo xam ne dañ koy teg ay outils ay mécanismes yoo xam ne loolu moo leen mën a jàppale ci li ngeen nekk di yëngatu maanaam bu fekkee ne yéen ay sportif ngeen collectivité territoriale bi muy mairie bi mën a bokk ci loo xam ne dina leen permettre ngeen gën a xarañ pour mën a gën a dem feneen parce que tey ñëpp xam nañ ne sport industrie la ñëpp xaalis bi ci monde bi ay footballeur lañ te li tax ñu am loolu c'est le professionnalisme maanaam dañ leen di wutal ay centre de métier ay centre de renforcement école de football yi bëri na Sicap soo demee Liberté 6 am na école de football nga dem Liberté 4 am na Liberté de am na fii am na li ci des mooy ay centre de renforcement mairie bi mën a taxaw au-delà des subventions yi nga xam ne ñi ngi koy jox ASC ñu tegal leen également jumtuwaay yoo xam ne dinañ mën a def sport mais surtout dinañ mën a def étude parce que aussi carrière dafa am fu mu yem mais boo demee ba sa carrière yem fenn fi lan mooy doon la suite suite boobu li la koy permettre mooy maanaam même soo amee ay prédisposition si sport bi mais nga mën a xarañ ci yeneen mbir yi te loolu li koy maye mooy sport étude donc ci fànn yooyu la suñu action basé wu beneen bi mooy wax nga ko est-ce que stade Demba Diop dafa bokk dañ ko bind ci suñu programme ngay laaj ndax suñu compétence la li ñu bind ci programme bi mooy te mooy cinquième axe bi parce que juróomi axe la ñu am ñun nee nañ ci juróomi aspect rek bu ñu ci do jëflanteek waa SICAP problème waa SICAP yëpp mën na retrouver wu ci biir du ma ñëw ci ñeenti axe yi wax nañ ko ba pare <coughs> mais ci cinquième axe bi nga xam ne mooy culture sport et loisir dañuy wax faire du stade Demba Diop un fleuron sportif un lieu de loisir couru par toute la ville en part Demba Diop mairie bi moomu ko stade Demba Diop fédération sénégalaise de football lañ ko rétrocédé ñoo ñoo ko yor waaye te li tax mu tëju nii c'est parce que dañ koy réhabiliter te budget bi ko war a réhabiliter pare na ba pare par contre li nga xam ne kenn mënu ko dindi mooy stade bi liberté la nekk population buñ fiy football temps yiñ fiy football wala ñi fiy def làmb wala ñi fiy def leneen ñun ñoo doon jànkonteeg difficulté yi am kon lépp luy dem lu ñuy def ci stade bi te stade bi nekk fii suñu biir foog ñu xool nan la foog ñu xool nan lay mën a nekkee en harmonie ak population yi fi dëkk mais foog ñu xool également centre yi ñu bëgg te amagul naka la ndaw yi di mën a bokkee ci dem ci stade bi Marius Ndiaye mi ngi ci biir leneen ak leneen mi ngi ci biir donc niñ ko tëjee nii tey amul benn ASC bu bëgg a jouer mën a jouer fii biir Sicap da ngeen di dem parcelle wala ngeen dem géejawaay te stade bi nekk fii à deux pas c'est vrai stade bi dina créer ay difficultés ndax bu ñu génnee gars yi bu ñu meree seen match yi bu ñu génnee oto yëpp la ñuy toj leneen ak leneen mais loolu yëpp nag lañ ne foog mairie bi taxaw ci xool ni muy concilier xale yi mën ko utiliser mais également mu mën a bokk ci luy joxe koom ci biir commune mais comme stade bi ñun moomuñu ko fédération moo ko yor foog ñu dugal ko ci ñu programme mairie bi taxaw ci loolu loolu du yem ci sport rek parce que jàpp naa ne même entreprise yi ne fii am na ay structure bugguma leen dir commune Sicap donte da ngay jël ay nit yu jóge feneen di liggéey mu am quota boo xam ne dañ koy jël pour ndaw yi dëkk Sicap ndax travaux ndax travaux mënul romb doomu sikaab yi nekk fi te duñ ci nekk kii ci li sikaab la bokk mi ngi liggéey fii wala ab boutique ñëw fi nekk magasin bu mag nga ñëw dugg fekk fa ñaar fukki employé te amul kenn ku dëkk sikaab dem ne loolu dina fi jeex bés bu ma nekkee maire kuréel gu fi taxaw di jël xale yi di nga jël xale yi boole leen si mais du ñu leen imposer rek ñu ñëw rek jël xale yi liñ leen li ñuy njëkk a def mooy suñu ndaw yi ñu tàggat leen wala ñu jàppale leen ci ñu tàggatu ñu am métier xale dafay am métier te li ma gis nii dama ko rafetlu xam nga ñu ñëw ne la kaay yow candidat nga dañu lay defal forum ndax bi ñuy commencé campagne bi dañu ubbi li ñuy wax programme volontaire de Zahra Iyane programme volontaire boobu mooy koo xam ne dafa ne yow li nga def doy na ma li nga wax doy na ma damay bokk ci lii defar sa campagne kon tey bu fekkee ne volontaires yi ñoo mën a ñëwal Liberté 1 nga xool ñun nu ñuy participer ci sa campagne mu am volontaire bu ne jël benn thématique gis ngeen stand yi ñu proposé ne wàllu euh, éducation formation employabilité des jeunes candidat bi yow lii nga ci wax ci ponk yi ñu liir ko ba pare ne liñ ci wax lii ak lii la ñu indil comme solution ci jafe-jafe yi ñuy am te waxuñu dañuy yem rek ci comprendre sa programme mais dañ fiy toog keneen ku ñëw ñu jéem la convaincre mais loolu ça veut dire que le programme répond aux préoccupations des jeunes te lii moo war a nekk campagne nit ñi comprendre lan nga leen bëgg defal ba pare ñu approprier wu kon xam ngeen lan moo si des parce que man li may wut wutuma ko pour man de li may wut dama koy wut pour ñun donc affaire bi warul nekk kan laay tànn parce que euh, c'est une question affective warul nekk question affective Abdoulahad wax na ma ko wax na ko léegi le 29 juin 2014 dama ñëwoon nekk fii candidat biir Sicap bi ma ñëwee amul kër bu ma duggul biir Sicap ñu ne ma yow fii nga dëkk sa woy bi neex na trop yaa fi dàq campagne mais duñ la voter c'est ce que les populations m'avaient dit à l'époque parce que gisuñu suñu bopp ci li ngay def yéguñu ne yaa ngi suñu wet bi ma jógee ci loolu 2014 <coughs> boobu ba jëmmi jamono ji ma toll maa ngi dox ci soxlay Sicap xam lan lañu soxla xam nan lañ bëgg seet naka lañ koy mën a faje mais yemul foofu mais yemul foofu parce que biñ ci toppee di liggéey di liggéey suñu borom dogal na mu may ma ci diggu yoon bi moment boo xam ne war naa wala nit ñi mën nañu seede ndax kii li muy wax ne bés buñ ko joxee leneen lu jëm ci commune bi dina ci taxaw foog naa ñetti at a ngi nii maa ngi ci gouvernement bi di def liggéey boo xam ne dañ koy def pour Sénégal yëpp mais liggéey boobu ñuy def pour Sénégal yëpp gis nañ ne am na aussi njeexital ci biir jeune ci biir jigéen ñi ci biir population yi Sicap taxawaay boobu laa ne am na ay compétence yoo xam ne état central bi koy def dafa ne man pour li ma bëgg mu gën a jege askan bi dama koy jaarale ci ay mairie kon su nit ñi bëggee ci wàllu jàng tuut tànk yi école primaire yi nit ñi ci seen localité yi dama koy dugal mu nekk compétence transférée santé environnement ak yeneen ak yeneen mais loolu ñi bokk dëkk ci gox bi ñooy tabb kenn ku leen doy ci seen biir mu jiite mbir moom kon tey li ñu bëgg def yépp ci wàllu boobu ci mairie bi lay nekk kon day jaad su fekkee ne engagement bi may wax lu dëgg la ci man te mooy man fii laa dëkk Liberté de boo demee koñ da ngay gis sama kër mënuma fi réer kenn te ñun ñëpp xamante nañ donc ça veut dire que fii ma dëkk nekk ak yéen mënuma fi def lu leen réer wala mënuma fi sañuma fee def man boog xaw keneen mais man sañu ma fay def loo xam ne dama koy wax rek te duma ko duma ko réaliser parce que ñoo bokkandoo dëkk te ñu ci bëri aussi boo leen gisul ñu juddu màgg sa kanam euh, quand même euh, xamante ngeen yéen a bokkoon fréquentation kon loolu moo tax SICAP dafa war a saisir opportunité boo xam ne ci par rapport ak problème yëpp yi ñu am nag bëri na de du ci sport bi rek accompagnement jeunes yi c'est une question mais euh, insertion jeunes yi c'est une autre question parce que bu ñu génnoon tuuti dox ci tali bi dinañu gis trois wala quatre points yoo xam ne ndaw yaa ngi fa toog di naan ataaya wala di def leneen di nga dugg ci biir kër yi fekk ko am diplôme am xëyul donc yooyu yëpp pour ñu solutionner ko foog ñu am ay ressources ressources yi état bi di jël ci état central jaarale ko ci communauté yi mooy mairie yeeg département yeeg ville mais surtout ressources yi nga xam ne day jóge ville de Dakar parce que baa kenn ku nekk individuellement ñi fi toog ñëpp kenn ku nekk soo demee toog dangay ngay xool en âme et conscience bul seet ay jëmm dangay seet kan moo gën a mën a am profil tey pour li ñu soxla biir Sicap ñu mën ko fi dugal nit ñi liggéey. toog bi ma ñëwee fexe ngeen. ne ah non kii daal xaaral na aw fii awloo ngeen ma fu ne mujj gi ngeen lekkloo ma fonde <laughs> lekk naa fonde mais tey ñëwaat ngeen euh, déglu ma loolu la candidat soxla ñun li ñuy wut du sax ku ñu voteel mais ku ñu déglu xam ndax li ñuy wax baax na wala baaxul ba pare ngeen xool ndax li ñuy wax gëm nañ ko wala gëmuñu bu fekkee ne jàpp ngeen ne li ñuy wax baax na jàpp ngeen ne li ñuy wax ñun ñuru nañ ne gëm nañ ko moi je vous demande de nous la chance pour que ñu mën a euh, au moins wane ndax li ñuy wax gëm nañ ko walla gëmuñu ko li ci des nag comme ni ñu waxee ñun li ñuy jàppale mooy ñu voteel ñu SICAP Benno Bokk Yaakaar mais ñu voteel ñu aussi ville de Dakar. déedéet man indiwuma spécimen. Ah, déedéet grand vidéo jàpp naa ne boo ma fi gisee aussi waru laa proximité ñëw ba sama kër. ànd ak ñoom Birame ngeen ñëw wax fa wax yu rafet mais wax bi ma gën a neex ca wax ja mooy danga ne paa bi ñun ñëpp a ko bokk ah, kon barkeem foog ñun ñëpp ñu bokk ci loolu teraanga cër la kon man ma nangu ñëw ba ci biir koñ bi te du ma ñëw aussi dégg naa ndax tamit ba tamit du ma ci <laughs> amul sikki sàkk mm. comme j'ai dit euh, si moom li ma ciy dox moom toujours rek exemple bii la ñu xam ñun lii lañu mos a dund lii lañu mos a moo tax fan yële maa ngi wax bi ma gisee affaire yi xaw a jaxasoo ba am tuuti violence ma ne xam naa ne te lu ñu romb la waaye baaxoowul honnêtement j'étais très surpris peut-être incident de parcours te dootul amati ci kàttan yàlla donc wax ji du keroog tax na ak Tamsir soxna ñu wàcc saafonte tey yaa ngi nii toog maa ngi nii toog suba keneen damay romb ñu toog ñu saafonte bu ñu paree ñu àndaat indomisé mais balaa muy gën a neex élection bi paase voilà mu jeex daal voilà voilà bon voilà on passe à autre chose waaw vraiment daal sama waxu démb suma waxu tey man daal jàmm la sama waxu comme j'ai dit ay frères et sœurs bu ci nekk kii bu ñu tojee boppam fu ma jëm hmm. Hmm? bu ñu tojee boppam fu ma jëm man nag bu ñu tojee sama bopp. Ah, non dañuy waxtaan rek non xam nga lu tax xam nga lu kii ndey la ci man xam nga yow suma sër nga mais kii suma ndey la ah <laughs> xam nga boobu gën a garaaw donc loolu la ci garaaw donc kii euh, euh, kii suma frère la donc bu wooyee un peu naa loolu laa wax xale yi keroog bi ma dajeeg ñoom rey ñoom man leen camp bële ku fa gaañ man dinaa ko donc billahi wa rasul vraiment ma leen sant encore une fois di leen gërëm euh, di ñaan yàlla daal yàlla defal jàmm ñun li ñuy ñaan mooy li may wax toujours les gens sont ñuy bëgg a defar mun adversaires ma jox suma bopp bon foi ne les autres sont de mauvaise foi jàpp na ñëpp ki nga xamante ne nag mooy defar parce que dama ne lenn rek laa ragal ci mbir ñu fal ma jëppi ma bu naree am yàlla bu ma fal ki ñuy fal ki yàlla tànnal Sicap ba noppi yàlla na doon koy liggéey Sicap muy defar Sicap li fi war yi ak population yu bëgg li ñuy aspiré te nag waa Sicap jóg ànd ak moom c'est mhm. génn ci kër yi maire bu ñu mën a fal ñu ñëw jàppale parce que maire bu fi falu te waa Sicap génn ñu jàppale la da ngay nar ça je vous le dis tout de suite waaw kooku moom il faut vraiment si les Sicapois c'est un appel que je lance aux Sicapois nañu génn maire bu ñu fi fal jàppale ko te nañu génn tamit dem voté ji dañu dem voté ji ah, massivement donc li ci des rek amul problème yàlla jàmm sax merci beaucoup merci beaucoup on fait voilà c'est ça merci beaucoup muy mbëbëtu jigéen ñi ñëpp li ñu bëgg daal mooy ñett yooyu ku ñu jàppale financé ñu accompagner ñu jàppale ñu ci ay formation yoo xamante ni lépp lu ñu waaye teg lu waay teg suñu loxo dinañ ko mën a gérer ba ëllëg boo ñëwaatee dinga gis ni lii kat euh, sukkaliku na lii am na njëriñ def na benn changement am na impact bu positif vraiment ci li nga fi defoon. donc pour bañ a monopoliser parole bi euh, maa ngi yem foofu di la gërëm te di ñaan suñu ànd mu dem ba victoire am ci su ko defee ñuy. gis leneen lu raw li vraiment ànd bi gën a dëgër waaw merci beaucoup waaw fii tam ñu ngi fi avec la présidente nationale des épouses militaires waa c'est elle la présidente nationale donc moom tam euh, di ku yàgg ànd ak ministre bi am moom ay relation yoo xamante ni moo ñu gën a motiver tey pour ñu ñëw jàppale tey ministre bi ànd ak moom en tant que épouse militaire kenn desul jigéen ñi ñëpp génn nañu ci camp bi c'est un peu difficile parce que boo nekkee ci camp militaire munoo fa def yenn activité politique yi donc moo tax ñu génn tey ñëw fii suñu sœur bi ak yiir ñu ñu ñëw buntu këram Julia ñu defee fii activité bi ñu ngi koy gërëm tam au passage di ko sant ndax moom it jàpp na ci ndax liggéey bi moom ku nekk da ciy jàpp à sa façon moom li mu def tam vraiment c'est à saluer ndax bu ñu amuloon fu ñu recevoir ministre bi tam dina métti mm-hmm. waaw donc ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal tam mu yàgg fi lu mu am tam comme activité euh, <laughs> man maa ngi tudd Viviane mesdames madame Boissy maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñëpp. merci beaucoup ministre du ma wax ministre mais madame le mair laay wax. ñu koy sant di ko gërëm. épouse yi yëpp nag ñoo koy sant surtout particulièrement fii nga xam ne mooy épouse de Camp Leclerc ñu toog fii ñoom ñëpp ñu leen di sant tey vraiment kon mbégte bu lañu am ñuy ñaan nag aussi ku nekk ci ñoom. képp koo xam ne vraiment da ngay sànni carte man foofu lay waxe nga sànnil ko madame le maire Zahra Iyane Thiam nga bu gañee ñun ñoo gañe ñoo bokk lépp moom yàgg na di ànd ak épouse militaire yi man may madame Sarr Anne Marie Diouf Sarr nekk présidente épouse de militaire yi yëpp yu Sénégal yi donc Zahra yàgg na di liggéey ak yemul fii rek de national bi yëpp la liggéeyal ci militaire yi ay financement ay yëpp jot nañ ko ci moom booba dara amul waxatuma moom dafa nekk sax épouse de militaire déjà ndaxte dañ ko boole ci ñun loolu la doon dama bëgg ngeen xam loolu bu baax a baax luñ ko waxal fii tuuti na laa wax tuuti na te jàmbar la ku am fula ku am fayda ku bëgg liggéey ku fonk jigéen fonk jeunes yi fonk xale yi fonk lépp amul lu mu deful fii ci Sénégal rawatina ci épouse militaire yi boo demee ci kaw ci général ñoom xam nañ ko li may wax dama dëggu yàlla sargal moo tax ngeen ne da ñëw ñu recevoir la comme ni ñu ñëpp di recevoir e ngir ñu sargal la wan nañu yow la ñu waaye def nañ ay séance de travail ay yooni yooni yoon te loolu ñu doon def ak liggéey bi nga xam ne ay at a nii ñu ngi koy liggéey mësuñu ko fësal ndax dañu jàpp ne à part entière ngeen ci population mm-hmm. mais tey bu ñu gisee lii fës c'est parce que dañu wax gox-goxaat gox-goxaat mooy wane ne nit ñi dañu jege képp koo xam ne danga dëkk ci koñ bi rek moo xam femme civile nga walla femme militaire nga yittewu gox bi da lay yitteel da lay soxal rawatina nag bu fekkee ne également da nga am sa ay préoccupation te préoccupation yi ngeen wax mooy préoccupation yi nga xam ne jigéenu Sénégal yëpp moom la ñu am naka la ñuy amee naka lañuy amee lu ñu xëy walla lu ñu mën a yëngu te bu fekkee ne dañ ko am ba pare naka lañuy fexe ba mu gën a dëgër loolu bu ngeen ñu recevoir ñun waa Benno Bokk Yaakaar Sicap Liberté dañ ciy sawar a wuyu ndax loolu moo ñu tax a jóg te dañu fas yéene jigéen ñi am pàcc bu am solo ci liggéeyu mairie bi nga xam ne dañ ko tàmbali fas yéene ko liggéey ndax dëgg la war nañu xool suñu doom yi war nañu xool santé bi war nañu xool éducation bi mais surtout dañu war a xool li nga xam ne moo yor njaboot gi ci biir kër gi naka lañ leen di dëgëralee te njaboot gi ci biir kër yi nag kenn jiituwu ci jigéen ñi moo tax maa ngi leen di sant di leen gërëm dégg naa li ngeen wax ci formation yi dégg naa li ngeen wax ci renforcement de capacité yi loolu on le fera à l'échelle de la commune parce que dañu bëgg l'entrepreneuriat local nekk une réalité tey ci suba maa ngi woon Liberté 1 waxtaan ak jeunes yoo xam ne dañu nekk ay volontaire jël suñu programme faram fàcce ko ba pare wax ñu lu tax ñu ànd ak ñun ndax nee nañ programme bi dëppoo na ak seeni yitte yaakaar boobu nit ñi am nag dañ ko fas yéene dëgëral dañ ko fas yéene yaatal ndax pour man jàpp naa ne un moment historique mi ngi am ci élection locale yi élection locale yoo xam ne ñëpp a ci dugal seen loxo kon yéen lii ngeen wax ni présidente foog ñu gën ko yaatal en tout cas lépp luy accompagnement incha allah danañ ko def nañ ko doon defee mais li ma leen di ñaan surtout mooy nañu génn voter que bëri na citoyen yoo xam ne daawuñu sawar di voter ndax dañ naan politiciens yi ñoom ñëpp a yem dañuy ñëw rek wax jàll mais yoon bi du ñuroog yeneen yoon yi kon maa ngi ñaan askan bi yëpp keroog jouru élection yi na ñëpp jug fajar teel dem voté ji te laata ñuy voté na ñu jël li ñuy permettre ñuy voté mooy carte yi ñi ngi ci période du retrait des cartes ku amul carte na nga dem jëli sa carte su ko defee bu élection bi jotee ñu dem voté mais en tout cas xam leen ne nous sommes très sensibles à ce que vous avez fait ndax c'est pas courant ni commun de voir des femmes militaires yu taxaw wax ngeen nge ko seen bopp kon bu ngeen defee engagement bi non seulement ne da ngeen di wane ne si population bi mais ngeen bokk mais da ngeen am ay soxla am ay yitte comme tout le monde et dorénavant loolu aussi ni ngeen nekkee suñu ay naataangoo jigéen ñun noonu lañ leen di jàppee homme de tenue ñi ngi leen di sargal dañ leen di bàyyi seeni seen i waaye mm. yéen solu leen tenue yéen ñoo bokk tey baas ñoo bokk marinière ñoo bokk ndoke kon nag na ñu bokk àndandoor mais dans la mais ñu liggéey liggéey boo xam ne dinañu mën a indi suñu contribution ci lépp loo xam ne mën na jëmale suñu gox kanam